alaikum wa Sénégal alaikum les Sénégalais de la diaspora man Papa Diouf maa di béggee moy lan le 12 août bu soobee yàlla Arlem. Harlem ànd ceeg ñan New African Production ak Sénégalais Day Sénégalais Day nak bu ngeen ko déggé ay doomi sénégalais lañ yo xamné ne dañoo am jom ren ñu né dañuy def benn festival bo xamante 3 trois jours lay durer Manam ñetti fan vendredi bi man maa koy ànd ceeg raxas bu mag laataa maa ñibbi Sénégal muy le 12 août bu soobee yàlla Pape Diouf et la génération consciente Baye Babou ci biir loolu du yomb kon maa ngi invité fans yi yëpp xarit yëpp soppe yëpp am di jàmm yëpp Babou loo wax. waaw ma comme noo ko waxee rek waaw di leen wax ne kom Pape mi jëm a jiitoo fii turi Sénégambie la taxawal te loolu la feeñal. di wax Gambien nii di leen wax ne yee Sénégalais day bot man ma ne Sénégambien day xam nga comme mooy loolu dafa am on the la incha allah let's come out support I'm calling out every Gambian or the Gambian community in New York Harlem la moo nekka defoon nañ ko mu neex ñu ne mag doo dem da ngaa dooli so this time nag mooy loolu this time lu ees nga leen indil parce que da nga leen ko nëbboon waaye di nga ko feeñal aajuma incha allah parce que dañ la doon laaj mag ah esenu loo de fan mooy esen ba am ne fii day esen fii tamit day esen wookal Bakan. Lolo Papa Diouf day ñëwaat fi New York le 9 lañ fi Sénégal day ne koy bis raxas bi le 12 lay am fii ci New York Gaay beaucoup bu ko kenn raté Oui,